Sénégal kenn mësul xëy jël live am di saaga président Macky di ko traité de góor jigéen fii kenn mësu fi traité Abdou Diouf wala keneen de góor jigéen amul mësul am kon su amee le procureur moom mooy le responsable de ce qui se passe su amee la justice mooy responsable man du ma wax kenn ah. justice moom mooy responsable looloy dëgg su amee procureur moom mooy responsable justice mooy responsable man mi ku ma saaga ci mbedd mi du man maay responsable parce que bu jàkkaarloo woon ak man ma fajal ko sama bopp mais ku taal internet am kole ma ci saaga ma ci te procureur defu ci dara c'est la justice qui est responsable loolu moom mooy dëgg ñun nag nañu organiser parce que nag loi bi day changer pour ñëpp ah. soit injure publique amatul donc appel a la révolte dootul am ñu régleel ko suñu bopp parce que nag ñun je pense que mën nañ régleel suñu bopp parce que ñun ñi nga xamante ne ñun ñu tekkiwul dara la ñuy wax ñun ñu jógewul fenn ñun ñi nga xamante ne barki démb tout le monde nous disait yéen ñi moom ay extrémiste ngeen ñun ñoo mën a ànd xeex ba jëli fi ñi nga xamante ne ñoo jàppoon ne ñoo moom réew mi kon ñun luñ mënul rek dañ koo xamul wala dañ koo jéemul ce qui se passe du problème le leader de PASTEF Ousmane Sonko parce que on n'est pas de PASTEF moi je suis pas de PASTEF je suis de force citoyenne mais ce qui se passe c'est une institution un premier ministre un président de la République des membres du gouvernement des directeurs généraux gis naa sax ku tuumaal Waly Diouf Bodiang mais on se croit où on se où on est où dëkk nag ay loi ak ay règles moom moo koy tax a dox ay loi ak ay règle moo koy tax a dox te dama ni tappaas bi mu ngi bëgg a ëpp bi mu ngi bëgg ëpp on ne se laissera plus fair nag man de j'avertis gis nga fi ñu toll nii j'appelle tous les patriotes yu nekk Sénégal ngeen taxaw ngeen pare parce que dafa am loo xam ni ñoo koy régler suñu bopp ah yéen patriotes yépp wax nag préparer leen tey la lundi mardi mercredi taxaw leen ku fi yëkkatiwaat kaddu saaga fi ay nit ñu dajale suñu doole bi ñu am du ñu manifester ci mbedd mi sa kër lañ lay fekk on n'acceptera plus de se faire insulter dans ce pays là réglons les problèmes nous-mêmes soit la justice da koy régler bu ko justice réglé wu ñu réglé ko suñu bopp et puis un point c'est tout loolooy dëgg loolu moom mooy dëgg kenn du dëgg du matin au soir depuis combien d'années ay obscénité ay saagawaate ay tuumaalaate ay waxanit nit lu boobu ba léegi nit ñi nekk ci mais di muñ mais di nangu mais ba kañ ba kañ maa ko wax maa ko assumé man may mun a buso maa ku ñu saaga te procureur autosaisir wu ci espace public nga jóg fajal ko sa bopp ànd ak say mbok say xarit ba neex c'est ça la vérité lan mooy problème bi lan mooy problème bi dañu dañ dañ fi changé wala lan ñun moo fi bes dara beesu fi nag xam nga da ngeen di jaawale dara les gens disent non kilifa nga man sax mooy wax sax ni certains disent euh, non euh, euh, yow waratoo wax yenn yi waratoo mer dama nii doxalin bi nga dox ba jot ci li ngay jot boo ko changé lu la ci fekk yaa ko def sa bopp ñun ay combattant lañu loolu kese lañ xam duñu ko changé mukk ndax na gis nga kër gi jotaguñ ci balaa ñoo jot ci kër gi sénégalais ne ci jàmm ñun ci naaj bi la ñu nekk dafa am ñoo xam ne nag dañoo amoon seen intérêt ci li amoon ci réew mi moo tax ñu cëpp cëppi ndaxte li amoon ci réew mi ab garab la gu mag garab gu màgg garab gu rëy rëy garab goo xamante ne raas mi dafa nëpp mais am na ñoo xam ne ñu ngi langaamu ci garab gi ba bëgguñu garab gi daanu garab yi reen yi daa nëpp de ñoom xam nañu garab gi baaxul mais bëgguñoo wadd parce que ñoom ñu ngi ci kaw ne ci jàmm léegi nag garab gi lañu ñu buddi sànni picc yi nekkoon ci kaw ramatu yi ñu ngi rappi rappi mbóot yi nekkoon ci garab gi ñu ngi wadd képp ku amoon yow peex mbaa nga amoon yow ker mbaa nga amoon yow porox ndollu boo làqatoo ci garab wala doon dundee xob yi wala doon dundee reen yi yow fi nekk ni newatoo ci jàmm waaye dama ni garab gi dañ koy buddi ndax garab gi moo fàtte sénégalais garab gi dañ koy buddi sànni buddi nañ ko ba pare mooy système bi dañ koy sànni fa garab gi nekkoon dañ koy defaraat préparation ba mu baax defaraat suuf si génnee sax yi génne sox soxoon yi génne yu bon yi daal di saxalaat jiw bu bees tàq di ko roose ak jàmm di ko roose ak fulla di ko roose ak dëgg di ko roose ak jubal ak jubbanti ba mu dëgër ñu taxaw aar ko yiir ko ba benn picc du ko coppati benn mbóot du ko yëy ñu bàyyi garab gi ba garab gi màgg sénégalais jëriñu ci ku amul garab nag demal nga wuti garab goo la am demal nga wuti ron woo làqatu mais garab gi moom day wadd par la force buddi nañ ko fekk xob yee dee nag yéenay am problème waaw fekk xob yi di wow xam nga garab boo koy door a daan boo koy door a xob yi day ay ay nit ñu ci làqatu day continuer am na yoo xamante ne ay genre xeetu yoo xam ne dañuy continuer dund dund ci biir garab gi mais question de survie rek yàggatul mooy yéen ñi di rap rap rapport jàpp leen ngeen xam ne yéen yàgg-yàgg garab gi day wow kongu ba taal ko yéenay rap rap nii di wut ñu ngeen financé di wut fi ngeen làqatu xaw na yéex pour ñenn ñi mais mu ngi ñëw <laughs> mu ngi ñëw garab gi moom ala kulli aal buddi nañ ko wuti leen yeneen garab yu ngeen làqatu wala ngeen dem def ni ñépp di def saxal seen garab parce que mënu leen ne ci réew du ngeen liggéey du ngeen gontu amu leen métier du ngeen sonn du dara du ngeen ko daj ba pare nag bëgg am avantage yëpp Sénégal yi nga xam ne ñooy xëy fajar di tëdd xaaja guddi ñoom duñu lekk duñu naan amuñu kër ñu tabax yoruñu oto yoruñu dara yéen ñi nga xam ni xëyu leen gontu leen sonn leen da benn problème daju leen ko bu ñuy joxe ay terrain ngeen séddoo bu ñuy joxe xaalis ngeen séddoo subvention ngeen jot engrais ngeen jot tool ngeen jot lu am ci réew mi ñu jox leen ko sénégalais yi nga xamante ne nag ñooy cinquante quatre pour cent ñoom ñoo ne lii doy na ñooñu ño duñu am dara ñooñu ñooy am na tey seen tuur moo jot ku aale wa ku aaye wal sa moome ku aaye wal sa moome ba mu mokk rumbox nga ko boo bëggee sombi sombi boo bëggee def leneen def leneen gis nga ñun man de président présidente de la république sa bu ma ko neexoon bu ma ko nekkoon du ma tere tontu du ma tax a bàyyi wax samay dëgg amul lu nit di doon ci réew mi te bu ëru wax dëgg jotee du wax dëgg nekk leen ay nit ñun ñun gàddaayuñu amul ndomba tànk wala fal bu ñu fal ba ngeen yaakaar ni war ngeen mën a génn di réppi réppi ci kaw nit ñi mënul nekk képp ku toogati ci plateau di en di xaste wala di saaga balaa pare direct bi nañ ko ko fekk looloo koy lijjanti loolu moo koy lijjanti loolu moo koy lijjanti maintenant kenn waxu na justice jàpp ay politique ah ku wax sa xalaat correctement mais bu mettee tamit on va te répondre correctement mais ku fa saaga wala eh, wala def dara yéen tage leen ko rek yéen tage leen ko ne leen diw mu ngi saaga ci tel site la nekk ñu fekk ko foofu mu xam ndax daf koy defati ou pas mu xam ndax sit boobu dañ koy bàyyi mu ubbi di xaar justice mu def liggéeyam ndax justice nag ñun ñëpp la fi nekkal ñun ñëpp la fi justice nekkal ñoo ko bokk te man nag gis naa nag fi ngeen ko bëgg a jàppoo nii dafa yomb de dama ni dafay jeex ñun dañu yor ay doom dañuy sëy dañu yor ay borom kër ñii dañu yor ay jabar dëkk ci dëkk bi ngeen bëgg xëy suba ba ngoon di wax lu bon ci nit ñi wax ngeen ko pendant ay ati at terewul sénégalais ne ñii ñooñu doy bu jom amoon tuuti ak kersa ak ngo ak ngor nit ki war a toog tuuti xaar ba sénégalais yi waxoon ñii ñooñu doy sénégalais yooyu xaddi nga door a wax mais déedéet sénégalais yi fal seen fal majorité démocratie de la loi de la majorité nga bëgg a génn encore continuer di tuumaal nit ñi di tuumaal nit ñi c'est les mêmes qui sont là dama ni APR bi fi nekkoon Benno Bokk Yaakaar bi fi nekkoon nit ñi yore woon réew mi noonu lañ nar a opposé wu bu yeboo ngeen xam ko ah ku ne ci yéen pare boppam ndax ñoom nan lañ yore woon réew mi xol yu bon tëjaate sosalaate tuumaalaate mais noonu kese lañ bëgg opposé woo noonu kese lañ bëgg a opposé wo ak ñu ñun ah <laughs> tuumaate xanaa luñ mënul mooy amatuñu doole mais tuumaal moom sosalaate fen wax ju bon wax bu ñaaw loolu képp lañ nar a opposé woo parce que amuñu argument ndax ñoom bañ nekkee ci pouvoir bi amuñu woon argument xanaa du tey la ñuy am argument yow ku yor pouvoir yor doole yor état di doxal yaa amul argument boo convaincre askan bi ba ñu falaat la yow boo daanoo ban argument ngay am na na na am argument yi nga amoon rek moom nga am ba tey mooy argument wax bu ñaaw sos wax bu yàqu argument yooyu nga opposé woon ba sénégalais yi nga xam ne yow yoroo dara lu wax bu ñaaw sànni la même argument boobu nga am ñun nag ñun ñooy am est-ce que ñun ñoo changé <laughs> mais ñoom changé wuñu ah ñoom changé wuñu ah nañ waxante dëgg ah ñun changé wala ñooy bëgg a changé bopp ñoom argument yi ñu amoon argument yooyu lañ am ba tey ñun ñoo changé ñun ñoo jàpp ni borom caq du xeex ak borom baatu neen ñun ñoo jàpp ni ñun waratuñu wax dañoo war a liggéey parce que nag heure liggéey moo jot mais liggéey ak wax bi day ànd parce que ñi fi nekk duñu dégg duñu dégg da ngay liggéey di wax da ngay doxal di xeex ba faw rek leneen amul leneen amu fi parce que ñoom xamuñu leneen ñoom xamuñu leneen ñoom xamuñu nit ñi ne bon bah voilà début bàyyi leen leen ñu wax on les laisse mais de oui euh, borom def na wax waxeet d'accord su la neexee c'est un argument politique ay nitam dinañ la défendre dinañ ko défendre vision bii ñu waxoon lii ñu waxoon wala lii ñu waxoon dañ koy def ci xaal loolu yëpp c'est des arguments qui se tiennent mais ay sosalaate ay kilifa toog ah ma ne même affaire criminalisation de l'homosexualité bii ñu jël fan di ko waxtaanee dinaa ci def sortie lu parce que nag ñun lu bari daf ñu fi fekk démb ak barki démb ñu naa neen 2016 référendum de oui et le non daf fekkoon ñun noonu lañu waxoon noonu lañu waxoon ñu waxoon oui ana ñu ñu de suñu loxo ngi nii ñu waxoon oui ana ngeen ñeme leen koo wax de nouveau droit yéen ko dugal ci constitution bi de li coow li di bare lépp di coow lii di bare ngeen di wax nouveau droit yéen ko dugal ci constitution bi ñun noonu la ñu waxoon non non on avait dit non yéen wii ngeen waxoon yéen mun ngeen wax wii barki démb tey ngeen bëgg naan da ngeen ñu yedd ak da ngeen ñuy xas fan ngeen koy teg fan ngeen koy teg xanaa ci ay bopp yu naax mais ñun naaxaguñu naaxaguñu ñun fii ci réew mi ñun fi mag fàttali fàttali nag ñu fàttali la ko 2022 Askan Wi di ñu waxee dañuy da jox leen ñu majorité ñu criminaliser l'homosexualité lan ngeen defoon yéen ñii di wax léegi di cëppi cëppi fan ngeen nekkoon ak lan ngeen defoon joxu leen ñu majorité de présent Macky Sall ngeen jox majorité minorité lañu am ñun ñun on a euh, ñaata député dañu am yeewi askan wi yeewi askan wi ñun ñoo ko campagne joxu leen ñu majorité yéen ñi di wax nii da ngeen bare ngeen demoon ne nee ngeen da ngeen a bare noonu ba def ay regroupement fa ngeen nekkoon voteelu leen ñu de joxu leen ñu majorité te dañ leen ko digoon waaye joxu leen ñu majorité te ba tey nag joxu leen ñu majorité de <laughs> coolee bare rek waxtaan bi neex waaye dama ne majorité ba ne assemblée nationale da ngeen defoon ko deux mille vingt majorité boobu moo fa nekk ba tey. majorité bi mën a changer loi yeeg règlement yi moo ne assemblée ba te yéen ko fal ñun bokk ñu ci de ñun suñu liste sax dañ koo changé woon yàqu ko musuñu dóor ba ngeen àtte musuñu ñu tëj ba ngeen wax bu leen def musuñu ñoo loo ba ngeen bokk ci dangeen ngeen daan ne waaye tey yée ne ngeen da ngeen a jóg waaye dama ni 2022 ñun bi ñu leen waxee dañuy criminaliser lu ngeen def ak ñun da ngeen ñoo jox majorité mukk defu leen ko tey nag fal nañ ñu ci kattanu yàlla suñu borom ak majorité sénégalais ñuy sant yàlla te gëm naa ni lépp lu ñu diggee woon ak sénégalais dinañ ci jëm te li gën a am solo xam ngeen mooy lan mooy euh, ñun suñu yére dafa am toile seen wax bu ñaaw ak seen i tax tak tak munu koo takkal bu ci tisee tamit xoolal day dem waaye dafa fekk rek ne penc mi dafa yaatu penc mi dafa yaatu ñu bokk ko ak ay suñuy njaboot ak suñuy am di jàmm te duñu nangu toog ci penc mii ay nit yoo xamante ne tekkiwuñu dara démb dañ leen a protégé woon ñu ñuy xas di ñu saaga tey jii ba tey ñu continuer ñu xas di ñu saaga amaana dañ leen protégé ba tey mais ñun dañ koy fajal suñu bopp bu ko justice fajul loolu muy dëgg préparons-nous à ça coow li neex mag mu fi génn tuumaal nit ñi boo génnee xale na nañ jàkkaarloog yow loolu moom mooy dëkk parce que il faut ngeen arrêté ah der der kese la der der kese te gor dara bii moom ko ñim séqal ñoom ñoo ko moom duñ fi nekk di leen bàyyi ngeen takkal deru jàmbur ya ah. am na ci koo xam ne moom c'est un lâche parce que dégg naa xaw ma Allemagne la nekk day xiisu bu ngoon di sos di collage ay photo jàmbur mais man xoolal am naa passeport am naa visa maa ngi ñëw Allemagne bis mu ñëwee Allemagne ba woole nag bu yeboo boo fexee nga wuyu waaye ku ne fii ci réew mi kooku jarul visa jarul dagg paas site ba mu nekk nañ ko fa fekk émission bu mu def nañ ko fa fekk ci émission bi jëflante koog moom wala justice dugg suñu diggante ak moom loolu moom mooy dëgg loolu moom mooy dëgg loolu kese laa am lu ma leen di wax di leen wax rek ne leen ñaara am dans un pays où les gens ne veulent pas faire la justice pour eux-mêmes, la justice doit être forte, que la justice fasse son travail. On ne peut pas accepter dans un pays que les gens se fassent calomnier, insulter du matin au soir, sans qu'il n'y ait rien du tout. Le procureur n'a qu'à faire son travail. Il est procureur de la République, il a appelé ici des gens innocents, yu deful waxuñu parce que tout simplement dañ ko wax jàppal diw tey il est où ce procureur il laisse les du ci def dara man nag procureur boo fekkente ne ñi may saaga defoo ci waxoo ci man dinaa ko fajal sama bopp man dinaa ko fajal sama bopp ah te bëgg naa képp koo xamante ne saaga nañ sa kilifa mbaa ñu saaga sa saaga sa yaakaar nga jóg fajal ko sa bopp te nag wasalaam man dinaa ànd ak samay ñoñ ànd ak samay mbokk ànd samay xarit te nag du yomb du yomb ci yéen kon li ngeen nekk nii ngeen génn ci ngeen génn ci parce que ne avoir un pays boo xamante ne ñi koy yàq yàq ko ba mu ne yaxet ak ñi nga xamante ne ñoo leen doon seetaan ak di leen jàppale ci yàq boobu pendant soixante quatre ans ñoo bëgg ñëw ci ñaari weer di xëpti xëpti ci kaw nit ñi naan na réew mi baax ak ne réew mi sotti réew mi su yàqoo yéen a ko yàq réew mi su bone yéen ko tax mu bon réew mi fi mu egg yéen ko fi indi lépp seeni loxo la nekk ngeen di war a pomp deret bi setagul ngeen war a pomp seeni loxo setagul ngeen war a yéen raxasu tuut eggagu leen ci ngeen tey taxaw di yedd ki xaste ak yi waxaate ay leçon de morale fan ngeen koy teg fan ngeen koy lal fan ngeen koy lal il faut ngeen arrêter aussi nañ waxante dëgg ku ci ne xoolal sa bopp ci seetu xoolal sa bopp ci seetu nga ne yow man fan laa nekkoon fan yi fan laa nekkoon at yi lan laa def ak lan laa wax ma bokk ci lu yàq réew mi ma bokk ci lu indi réew mi fi mu toll nii nit ñi di ko jéem a defaraat di ko ñab-ñabal di xool nu koy taxawale ma bëgg taxaw taxaw tey naan non non non ah non non c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a <laughs> mais quand même mais nit da lu baax ñun dafa mel ni sax bëgguñu lu baax ñun dafa mi ni ñun bëgguñu lu baax Mouhamadou Falilou Diagne je suis d'accord avec toi Si demain quelqu'un reprend des, des, propos ici pour insulter les gens, organisons-nous, allons régler ça nous-mêmes. C'est ça la vérité. On ne peut pas être dans un pays où on dit qu'il y a une justice et les gens se font traiter d'homosexuels, de lesbiennes, du matin au soir dans les réseaux sociaux, dans des sites certifiés qui ont des adresses. C'est quelqu'un de fait. loolu ça ne peut pas exister dama ni ñun ba président Macky Sall nekkee super homme super pouvoir di def lu neex lañ ko ragatuloon dëkk ci réew mii mësuñoo dem fenn di wax moom fii lañ doon wax ak moom booba lañ ko ragalul woon du tey jii lañ koy ragal du tey jii lañuy ñuy ragal dëgg dangeen di nax seen bopp foofu laa laa koy yemale ngeen jéggal ma ci kàddu bi ak ci ci xëtër bi mais man fan yëpp dama topp dama xawoon déconnecté wu un peu de la politique et des réseaux sociaux amoon sama yitte bopp yi ma doon dox ba nga xam ne yu bare daaw ci daaw ko xool am na ñoo xam ne ngeen baal ma du ma tudd seen tur damay dégg nit ñi di ko wax mais yàlla xam ne ni man yéenewuma leen man ma tudd sama seen tur ci sama gémmiñ mais nag maa ngi gis des fois nit ñi di ma partager ay wax yu ma ay nit di wax wala ay site internet yoo xam ne ay nit dañ fay toog ay nit di leen may vitrine ak possibilité ñu may wax dara mais dama ni bu yemee ci ñun ga tey garaawul mais bu demee nag ba ñuy tudd suñu image suñu dignité bu demee ba nga xamante ne ñu ngi ciy boole ay nit ñu yore man sax yéen euh, procureur mën na wax ni man waru autosaisir pour man malgré que war na ko def parce que ci espace public dañ koy defee mais dama ni un premier ministre chef de gouvernement ay nit di yëkkati ay kàddu teg ci moom kenn du ci wax gis naa ay nit yëkkati ay kàddu teg ko ci président kenn du ci wax waaw ba tey mën na nekk justice na na bu mu ci wax ñun nañ ko fajal suñu bopp ma xool nag ban justice mooy ñëw naa ñu lu tax ngeen fajal ko seen bopp c'est tout mbir noonu rek la yomba bu leen ci wax ba seen ay xool jóg bu leen ci sonn bu leen ko def naqar organiser wu leen ngeen xam ñooñu fan leen nekk ñu dem fekk leen fa ñu leen ëpp ah on est majoritaire nañ fàtte loolu on est majoritaire sénégalais yi ñoo décidé y ñu majorité ñun ñoo gagné dafa ne ñu ñoo xam ba tey gëmaguñu ni ñun ñoo gagné ah ñoo xam ne gëmaguñu ni ñun ñoo gagné <laughs> mais ñu ñoo gagné c'est-à-dire que ñun ñooy majoritaire ñun ñoo falu ñun ñooy majoritaire gouvernement bi c'est quelque chose gouvernement bi c'est quelque chose mais ñun ñu falu ñun ñi fal ñun ñu joxe suñu mandat ñun ñoo moom suñu mandat newoon naa leen au lendemain des élections il faut qu'on soit des sentinelles il faut qu'on des sentinelles ñu identifier les sites internet bu yeboo nag su ma paree ñu bëri ci ñoom daal di tagge mais mu ne bu soo appel au meurtre wala appel à la haine dama ni samay wax man kenn du ko déformer parce que ci réew mi laa dëkk dama ni bépp site internet bu ay nit di taxaw di saaga nañ dem foofu fekk la fa di jënti ko ak yow bu fekkente ne justice defu ko bu fekkee justice deful liggéeyam mooy tere la nga saaga ci espace public bi nañu dem ñu fajal ko suñu bopp loolu laa woote ndaxte yéen dama yaakaar ni door yi ñu leen dóor ba léegi daa saf ci seen yaram vous n'arrivez toujours pas comme ni ko kenn waxee à digérer bàcc yi ñoo saf ba tey seen yaram yi ba tey mu ngi mu ngi mu ngi tuut yaram yu tuut xam nga yaram yu tuut mooy yaram yooyu def ay tër ay tërgër daf koo def ba tey moo tax mais nag ñi leen ko làbbali woon yat yi caw yi mbool dey mu fi ba tey dara changé wu ci mbool dey yaa ngi fii ba tey ñu ngi leen denc ci yat yeeg caw yi lépp a ngi fi liñ leen ko cawee woon ba ngeen dem toog caw yooyu mu fi ba tey caw yooyu mu fi ba tey les gens ne vont pas continuer à se laisser faire ah mënul nekk ah mënul nekk ñu continuer noonu donc vraiment bëgg naa Sénégalais yi nga xam ne yëpp ñoo nekk seen kër yi di dégg ay kàddu mu leen di metti seen naqar seen xol ñu koy gis di ko dégg ci penc mi di tax mu gën a metti mooy dañ cee gisul saafara dañ cee gisul kenn jéem ci dara dañ cee gisul kenn wax ci dara dañoo dem ba gis sax ay journaux dañuy taxaw di cité nit day wax blanc ñoom ñu dem bindal ko rouge te dara du ci fekk kenn hmm? moo ne de euh, ay diffamation ay nit tëj nañ leen fi kaso ndax loolu pap pap su ma xalaatee toujours sama xel day dem ci Papito Kara sama xel mënul jóge ci moom ay ñoom at Ousmane Diagne nga xam ni ay dañoo bind ay une journaux ñu jàpp leen tëj leen ci kaso bi tey on voit des gens dañuy jël ay journaux di sosal ay nit dara du leen dara du leen ci fekk yéen ñi am lu leen metti nag te ngeen yoroon seen carte voté te nekk la majorité xam leen ni mbir moom ñaar a ci am ba dëkkee ci kër da ngay am kilifa ñun suñu kilifa mooy justice bu dara amee dañuy xaar justice mu def liggéeyam bu justice deful liggéeyam nag ah nga doon sa kilifa yi bopp nag tamit ci fayda la bokk j'espère que duñ ci egsi foofu j'espère que duñ ci egsi foofu proté protéger le projet nag pour euh, patriotes yi ak ñenn ñi ne Pastef ak sénégalais yi nga xam ni sax bokkuñ ci benn parti yu koy def protéger le past le projet ne veut pas dire damay xëy suuf ba ngoon di may ay nit ñu amul benn importance buzz di wax ci ñoom di leen tagge ak di leen may euh, benn légitimité ak benn vitrine bi loolu du du loolu protéger euh, le le projet installé au palais de la république parce que c'est notre bébé suñ doom la ñoo ko jur ñoo ko sukk jur biñ koy sukku nag omi diisoon na lool matu bi woon na lool mu metti lool ngénteeguñ ko sax ay nit di rëppi rëppi nan dañuy rey doom ji xam nga protégé ko mooy lan muy lépp lu waaye gis lu koy yàq nga jóg ci taxaw ci c'est parce que dañu nekk majorité que duñu war duñu war des manifestations <laughs> mais leen yéen yéen comprendre leen je vous demande d'inscrire de manifestations am ngeen ci droit c'est pas parce que dañoo nekk la majorité wala dañoo nekk au pouvoir qu'on n'a pas le droit de manifester lu dëkk bi di doxal lu du yoon ku ñu saaga nañu def suñuy demande d'autorisation bu ko justice jaaralul yoon ñu fekk la fa nga nekk faj ko ak yow loolu moom mooy dëgg on n'a même pas besoin de nous organiser on est déjà organisé le projet est là il est au pouvoir mais la vision est entre nos mains la volonté elle est nôtre La force, elle est parmi nous, dans nos bras et dans nos cœurs. Tout ce qui peut nuire à la, au développement de ce pays